aousubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan wala ko yaxsimuka mina naas ya allah barke borom tubaa eh, bokki jullit yi eh, tey bu gisee sunu jataay bi ñu ko amal fii ci kër sëriñ Yaafi Buso al imam mi nga xam ne mooy sunu jëwriñ ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu jumaa ji mu ne ci bopp bi di jëwriñu daayira Muxaddamatul Xidma ginnaaw bi ñu jiitalee du mu taxa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér euh, tey jii nag mbooloo mi itam ñu ngi bàyyi ko waat France ci teewaayu al imaam euh, sëriñ Bousso bi Bousso di rakk ci sëriñ Yaafi Bousso al imaam ñu bokk lépp mu nekk foofee ci kër sëriñ Touba doon imaam bi nga xam mooy taxaw waxtu julli ya ci online foofu ci France ànd ak tam sëñ am di Moustapha Mbacke bokk ci Euh, daayira bii nga xam ne Muxaddamaatu Xidma bokk ci commission culturelle bi nga xam ne mooy taxawu liggéey bi euh, ak sunu jëwriñ yi nga xam ne nag yoon wi miin na leen ci liggéeyu Seexul Xadim bi ci bitim réew euh, rawatina ci daayira Seexul Xadim yi ak ci bépp liggéey bu jëm si Touba muy sëriñ Seex Juuf mi toog ak sëriñ Magay Ñang bàyyi ko ba Toulouse ak suñu Ibrahima Diop mii di rekk sëriñ Mouhamadul Habib moom tam di suñu jëwriñ di suñu xalifa Euh, sëñ Afia tey jataay bi buñ ko gisee euh, mbooloo mi nga xam ne ñoo ne France France buñ ko tuddee moom danañ tudd président fédération muy Elias Bamba caam mi nga xam ne moo jiitee liggéey Cheikhul Khadim ba fa nekk ak secretaire général ba sëñ Khadim Gueye euh, ak jëwriñ yi nga xam ne tam naka jekk ñooy mas di taxawu liggéey bi muy sëñ Modou Kara Samb ñoom ak ñañ àndal ñoo ñëpp dañ leen tudd ci sa kanam ndax miin nañ leen ci bagage bu fa mas a jóge ñëw fii ak ay jëf tey nag yàlla daa dogal ñu doon indiwaat seeni barkeelu muy addiyaat yooyu nga xam ne eh, ren jii am na lu ci yokkuwaat ngir doon ko dajale mu jëm si ci waa jumaa ji eh, indi nañ fi nag tey jii lu toll ci six cent trent quatre mille eh, benn murit mottali na ko ba mat six cent cinquante mille loolu moom lañ fi indi ren yàlla dogal tam liggéey bi. ci France euh, dem nañ ba gën a yokk jéego yi ak xalaat yi ba taxawal lu mel ne euh, ab association boo xam ne euh, ngir bëgg yaatal liggéey bi loolu nag biñ ko xalaatee tam ñu am ci dëppoo ba tey ji sëñ Amdou Moustapha Mbacke mii moo nekk ci bopp liggéey boobu yàlla dogal na nag dana toll ci nos ba ba Euh, ñi nga xam ne lañ xalaat ne it danañ mën a taxawu liggéey bi ci wàllu secretaire général mooy ñooy ñee ci doon jox bu njëkk muy ñoom sëñ Bakke sëñ Bakke Mbay ñoom ñoo ñu xam ñoo fa nekk sëñ Bakke Jeng waaw euh, ak sëñ Mor Xarma euh, sëñ Paam Ndaw mi nga xam ne moo ñu doon wax léegi ci audio yi ma la doon di digtal ñoom tam ñooy ñi nga xam ne ñoo ko sëñ Adama ñu taxawa ci wetu trésorier général bi kon daal loo liggéey boobu lañ doon eh, leeral sëñ Afia eh, di sàkku tam nga ñaanal nu te ngeen jàppale ci liggéey boobu ndax France tam yaatu na waaye liggéey bi tamit taxugul mu tasaaroo fa ndax yenn ci ay gox rek ñoo ciy yëngu buñ xoolee lii lii ñu fi indi eh, ay ay ay détails sax mën na ko bañ a jar waaye tam leeral tam liggéey bi nga xam ne mbooloo yi ñoo ko doon ànd di ko dox ndax foofu ci La Roussillon sëñ Sidi Diop nekk fa ak sëñ Cheikh Diouf mi eh, ak sëñ Ibrahima Diop mi eh, ñoom de saxalan sëñ Touba ca marché yooyee nga xam ne fa la ñuy xëy bés bu set ñu am luñ dajale jox ko waa jumaa ji ba tey buñ doon xool lim bi fi jógee lu toll ci 400000 bàyyi ko na fa buñ xoolee daayira bi nga xam mooy Toulouse eh, lu toll ci ñaar fukki junni jóge na fa. buñ xoolee ci confédération fédéral euh, France bi nga xam ne mooy liñ ci boobu ñu defoon. Euh, nga xam ne moom lañ tasaare woon siiwal ko ci mbooleem réseau yi ak ci mboolem daayira sëñ Tuubaa yi ne France yëpp buñ xoolee la fa bàyyi ko day toll ci cent trente et un mille loolu mooy li nga xam ne moom la waa France liggéeyal seexul xadim ci màggal gi di sàkku nag euh, ndax xam nañ seen yéene xam seen Pastef te jàppale nanu ndax président fédération bi yëkkati na kàddoom mu ñu taxawal daara yi mu xadamaatu xidma ñu soññee ci ne képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi rek euh, tey liggéeyal seexul xadim liggéey bi jëm ci jumaa ji noo ci mën a jàpp nga jàpp ci ànd ko ñoom sëñ Assane Diop ñii loolu tam ñu ñu ñu ñu leeralaare ko sëñ kon xamaa dañuy jël kàddu gi rek jox ko sëñ Cheikh Diouf. bisimilah barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk yi noo ngi leen di nuyoo di leen siyaare di leen baal waq di leen baal àq di jaar di ñaan sunu di leen balaax di ñaan sunu borom mu boole nu jéggal di jiital ci nuyoo bi sëñ sëñ Afia mi nekk ci suñ kanam di jiital muxaddimatul xidma mu jottali nuyu nuyoo bi sëñ Muntaxa moom sëñ Basiru mi jiital murid yi jottalil ko sunuy ñaan ci mbooloo mi yëpp ñu ngi ñaan mu wér te gudd fan lool ci barke borom Touba noo ngi koy ñaanal sëñ Muntaxa yàlla na ko yàlla def ci moom xam naa di jégalu bu baax ci kàddu yi di dina sooxe lool ndax suñ kilifa yi fi nekk waroon a jottali kàddu yi waroon a jottali liggéey bi yëpp. Euh, jox ma ndigal ma ma def ko du ma ko sañ bañ waaye day diis ba nga xam ne dana tax li ma ma ci war a mën a def sax duma ko mën a def na ma ko war a defee kon maa ngi koy jégalu bu baax di wax ne euh, sëñ bi donga yi nee ñu liggéey bi mi ngi noonu tuuti lool ñu xeeb ko lool di ñaan mu yokk lool di ñaan nga ñaanal leen ko. ndax yéen a yëg pas-pas yi mel na ne ëpp na li ñu indi kon nag dañuy ñaan suñu borom mu yokk ko rek eh, ba mu gën a kawe njort xam naa eh, liñ fi waxoon daanaka moom la ñuy waxaat rek fàttaliwaat lay doon rek nu xam ne liggéey bi liggéey ngi bi xam boo xam ne maanaam war nañu toll fu ñu toll di ko fàttaliku rek ndax maanaam yitt la joo xam ne jamono bu ne mi ngi taxaw kon nag euh, weer wu ne bis bu ne war nay nekkaat ci suñu xel ba nu boole ko ci yitte yi li yitte yi bari bari ak li muy xat-xat mu bokk ci yi nga xam ne moom la ñuy gën a farataal rek kon loolu fàttali lay doon rek euh, moom la ñuy wax fu ñu toll kon nag jàpp nañ ne xat-xat yee bari ba nga xam ne Euh, képp ku dégg kàddu gi maanaam dana xam ne euh, lin ñu waroon a def mi ngi nii te mi ngi ci suñ kanam kon ñu danañu fàttaliwaat ñu mën cee taxawaat rek ni ñu war a taxawee noo ngi jégalu bu baax nag ci kàddu yi te xam ne tey jii daal moom xaw na ma am <laughs> mission ba nga xam ne. dañuy jox kàddu gay al sëñ Bousso bi Bousso mi nekk ci Paris ci kër Seexul Xadim gi eh, naka jekk nam liggéey bi eh, moo ci mas di nekk suñu kilifa bi ñu fi demee France itam eh, ba fekk ko online ci kër sëñ Tuubaa ga dajale woon na mbooloo ma nga xam ñoo fa nekk ak jëwriñ yi yëkkati woon doom xam le ne sëñ Asan mi kat ci ndigal la fi ñëwee ci ndigalul sëñ Aafiya bu Buso al imaam ba ren jiitam taxawaay bu mag taxaw nañ ko ci ndax sëñ Modou Fall moom i nga xam ne tey jii daje biñ doon amal fii ci kër sëñ Afia kenn jiituwu ko fi te bu ñëwee wax na fi ay xalaat wax fi ay yéene yoo xam ne tamit euh, fas nañ ko yéene feddalewaat seen laxasaay ci liggéey bi ba sun yaakaar dolliku na ba kenn ku ne xam na ne liy yokk ci liggéey bi tam ñoo ko soññee ba liggéey bi egg fii kon imaam xam naa dañ lay jox kàddu gi rek leeraloon na na woote boobu woote boobu nga xam tam ñoo ngi ko fa yéene woowaat ñëpp ñu wuy si waaw alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi nuyu mbokki taali bi ñuy dégg yëpp di siyaare suñu afe mi ñu fekk ci këram tamit jëwriñu daayira bi di siyaare mbokki taali bi ñu àndal teew fi sëñ Assane Diop sëñ Cheikh Diouf sëñ Ibrahima Diop sëñ ñan ñëpp rek sëñ Maguette ñang ak sëñ di Mbacke mi nga xam ne ñoom ñëpp di jëwriñ ñu di siyaare bu baax yàlla dogal ñun ñëpp nag tey ñu ñëwoon fi di jébbale liggéey bu nga xam ne suñ mbokki bi ñu nekk France ñoo ko def ni ngeen ko gisee rek sëñ asan moom jëwriñ na joo xam ne daanaka ni ma koy waxee rek moom bu ngeen ko gisee rek doy na soññee doy na gu wóorit ndax ñi koy yebal moom seede nañ ko ba tey ku ne xam na ne moom lu tegee ci loxoom rek yegg si na jumaay sëñ Tuubaa ji ñëpp xam nañ ko buñ ko gisee it xam ne jërutu ñu ciy teg baat xam nañ ne loolu rek ko tax a jóg loolu lay woote ci lay yëngu guddeeg bëccëg kon nag ñu xam ne moom jëwriñu joo xam ne xel yëpp dal na ci daa ñu bokk ñaanal rek sëriñ bi gën koo dëgëral ba lim ci yéene lépp rek mu mat kon nag maa ngi soññiwaat niñ ko baaxoo defee rek sunu mbokki taalib yi nekk France yëpp nu xam ne euh, liggéey sëriñ sëriñ bi bari na ndax lu baax dafa dafa bari waaye nag tolloowut waaye jàpp nañ ne moom waxuma la fii sëriñ bi nekk nga xam ne fa la fa la nekk ñëpp di xam ko di fa di fa dem di ko fa siyaar waaye jëmmi jàkka rek li ci yàlla wax ku koy dundal eh, loolu rek dafa doy seede ndax moom moo seede ne ab julit dëgg dëgg moo koy def julit dëgg julit mooy ki nga xam ne ndigali yàlla yëpp day neena day day day nangoo julli def farata yi nangoo natt asaka ragal yàlla ñooñu nee na ñooy dundal jàkka rawatina nag jàkka joo xam ne wóor na Seexul Xadim nga ci biir kon foofu moom ku ne xam na ne moom loo fa dugal moom raw na te nag li ñuy kër-kër yi yëpp li ci ëpp solo rek mooy li nga xam ne ëllëg danga ko fekk ndax mën naa bari lool te lépp fi nga koy bàyyi waaye am na ci loo xam ne moom kenn du ko jël yaa ko moom sa bopp ci mooy rawale lii def lu baax ba bu ëllëgee nga jot ci di ci jot ci àdduna di ci jot ci àllaaxira kon liggéey ci jimaa ji moom maanaam dara dara dara dara ëpp ko solo kon ñoo ngi soñ suñ mbokk yi nekk France yëpp rawatina Île-de-France nga xam ne fa lañ féete ñi nga xam ne daal daayira bi ñu ngi leen talal loxo ni ko suñu Asan waxee nag gën nañ koo organiser noo xam ne képp foo mën a nekk foo mën a nekk rek dañ ci mën a barkeelu xam naa suñu am di dana ko leeral incha allah comme France Paris nit ñi dañoo ñàkk jot ci dañoo sore ah, dañ ko tërale noo xam ne fu waaye mën a nekk rek boo ci bëggee dugal si loxo day yomb incha allah kon daal kàddu yi moom jërta guddal naa bàyyi mbokki taalib yi dañ doon seede rek ne suñu mbokki taalib yi indi nañ fi liggéey bi teg nañ ko ci loxo jëwriñ ji bu soobee yàlla li ngeen ci bëgg lépp da ko ci am kon ñu gën a góor rek ci ñaan yàlla sëñ bi dëppal ñu ci ak tawféex di ñaan Cheikh Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa ñëpp di jëwriñ ji mat jëwriñ di jiitu ci lépp ñaanal ko yàlla gën ko fee yàggal ba moom it li mu yéene ci yoon wi lépp sunu borom defal ko tawféex ba mën koo yàggale ci jàmm ak salaam jërëjëf.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 Euh, al imam euh, Cheikh Afia Bousso euh, di ñaan sunu boroom mu gën koo dëgëral yàggal ko lool te may ko ak wér ba li mu naara liggéeyal sëñ Tuubaa te ànd ko yi suñ borom defal ko ci ndimbal ba mottali ko ci nam ko gën a bëggee te lépp ñu ànd ko moom di ñaan moom itam mu ñaanal kilifa ak yëpp Cheikh Mountakha yàlla suñ borom dëbb ko kàttan moom itam ba naal am yëpp mu mottali ko te ñu ànd koog moom lépp barke Sëñ Tuubaa eh, kon ñu ngi fi ci kanamam di leeral lenn ci liggéey yi nga xamante ne moom moo ñu ci toqi ba ñu nekk ay tout tànk ba léegi nekk ci agronome di liggéeyal Sëñ Tuubaa ci jumaa ji eh, mu mu ñu ji teete eh, ni ko aliment sëñ bu soobee waxee sànq gannaaw sëñ Cheikh Diouf ak sëñ Assane Euh, loolu mooy liggéey bi da daan daa daa mel ne sëñ sëñ bu soobee leeral na ko leeral na ci loo xam ne euh, daanaka sax kàddu yi dooru ko woon jar waaye nim mu junjee ne dana am luñ ci mottali rek xëy na loolu lañ ci eggale mooy liggéey bi liggéey bi sëñ la boo xam ne moo ko soññee bàyyee ko fi bàyyi ko fi mu nekkoon am naal boo xam ne ñëpp xam nañ ne sëñ Tuubaa lim fi bàyyi ci naal moo yoonu Màkka ak jumaam ju tedd jii nii loolu moom leer na ndax alxaaj Mbàkke Buso moom moo ko moom moo ko wax ak jàngukaay bi nga xam ne moom la Sëñ Muntaxa def kon ñett yooyu mooy ñetti bëgg-bëggi Sëñ yi nga xam ne yu ñu xam la yu ñu fi bàyyi woon ñett yëpp nag di warteefu murid yi ñu taxawaay ñu taxaw ci ba mu sont ni mu ko bëggee woon moom eh, da ci am loo xam nag mooy liggéeyub jumaa ji mooy liggéeyub aj moom Sëñ Fall defoon na ko defal ko ko ànd ko ñam ko àndaloon liggéeyub daara ji itam gis ngeen ni mu yitteelee sëñ Muntaxa ak nam cee taxawee ànd koog murid yi liggéeyub jumaa ji nag moom itam ña ko ña ko tàmbali woon di Cheikh Mouhamadou Moustapha ak ñam àndaloon beeg sëñ Fallu niñ koy ubbee 7 juin 1963 ba mu ko ubbee ba noppi lam ca waxoon ci ay kàddu te mu des bokk na ci ne tabax baa ngi noonu kon nag ngeen koy solal mbubb ba fu mën a yem loolu la muy wund mooy tabax bu noppi la bu ñu ubbi buntam waaye nag duñ ca noppi mukk ndax dafa laaj ñu koy taxawu saa yu nekk ni ko sëñ ma sëñ sëñ al imam sëñ bu soobe waxee bu nekkoon jàkka rek war a tax ñu war koo taxawu ndax li ñu jàngale ci teggiini jàkka ak dundal ko te muy junju aaya ba nekk suratu tawba di wax na ñiy dundal ay jàkka mooy ñi nga xam ne ñoo gëm dëgg-dëgg ñoo ñoo am dëgg-dëgg ngëm yàlla loola rek jaroon na taxaw ci niñ ci war a taxawee waaye fele sunu yaakaar ñun ñëpp di Sëriñ Tuubaa nekk ci jumaa ji kon loolu itam beneen taxawaay la bu murit yépp war a am ci fexe ba foofa mel nam war a mel ñu wàccoog moom ca lañ war a wàccook moom ci ak cet ak ci ak xay ak ci Eh, wàllum kaaraange ak lépp loo xamante ne daal barab bu ñu jaamoo yàlla war na naa mel ñu fexe ba mel ne loolu nag faaw mu am ñu ci taxaw taxaw boobu nag dafa laaj ñaari taxawaay laaj na taxawaay bu ay jëmmu waaye nit ñoo xamante ne dañuy sacrifier seen dund def tadaxiya joxe seen bopp ngir di taxawu liggéey boobu waaye laajul rek liggéeyu doole kese dafa laaj liggéeyub alal ndax da ciy am loo xam ne alal rek moo ko mën a sontal bu fa téeméer nit nekkoon wala junniy nit di fa di di joxe seen doole itam faww la ñuy jumtukaay yi ñuy jëfandikoo dafa laa ñu def ko loolu nag ni murid yi baaxoo doxee mooy ñii dañuy taxaw fii ñii féete fee su ko defee li ñuy defandoo lépp sotti daayira mu xaddamatul xidma ba mu taxawee ba léegi ci mars 1994 ci ndigal Sëriñ Saalihu seen yitte jëpp mooy joxe seen bopp jox seen bopp Sëñ Tuubaa euh, def ko tadaxee ci jumaa ji euh, ngir di fa liggéey Sëñ Tuubaa murid di leen fa fekk ak seen alal di ca jàpp ca la ñuy yittewoo ca loo xam ne alal rek ko mën a saafara ñu koy dimbali ko ngir loola so loola saafara loolu nag murid ak fu mu mën a nekk daa war a jàpp ne loola kenn waru ko caa jiitu ndax ña fa nekk joxe seen bopp ñoom lañ fa nekkal ñooñu nag la jaadu woon ci murid yëpp la ma jàpp. mooy ñooñu ñu yoral leen seen lépp ndax Sëñ Tuubaa moom ku ko jox sa tuuti la ko jox sa mbir mu jox la mu yoral la sa tey ak sa ëllëg loolu si Musaa Ka waxoon na ko ci aw way woo xamante ne bu lépp la ñi ko daan bindal mu leen yor ña di leen dundal ña koy bayal ak bindal muy jël ay yëf di leen jox kon loolu la muy tekk mooy foo féete sëñ bi rek murid yee nga fa nekkal te murid yee la war a nekkal war a féete fépp nag ndax murid yi ñooy Sëñ Tuubaa eh, mu dolli waat ca ñaan gu Sëñ Tuubaa ñaanal ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy jëmmal barab bi nga xam ne mooy jumaa ji te boo demee ca xasida ga mu tënkee ga mu ga mu ga mu tënkee matlabu matlabul fawzayni maanaam moom la ko tuddee doon wax ci dëkkam bi waxaale na ci jumaa ji ñaanal ñi nga xam ne ñoo ci taxaw njëggalug yàlla waaye ñay taxaw ca tabax bi ba tabax ko ñooñu ñaanal leen waaye ñay dëkk seen gannaaw itam nga xam ne dañuy taxaw taxawaayu ndimbal ca lay jëmmal barab boobu itam ñaanal na leen moo wax waxfir man banaw bina ahar rafia waxfir li man amarahum bihi jamia waxfir li kulli man aanahum ala binaika alladi bi fadlika atala képp ku bëgg a dugg ci ñaanuk Sëñ googu sa taxawaay war naa feeñ war a fés bu baax ci jumaa ji nee nañ Sëñ Fallu itam waxoon na ko ne jumaa ji moom képp ku ci feeñ dootoo nëbbu waaye képp ku ci nëbbu itam dootoo dootoo dootoo feeñ am murid nag feeñ ak ñàkk feeñ war warta nekk yitteem dëgg-dëgg waaye yitteem dëgg-dëgg moo war nekk def luy gërëm loo Sëñ Tuubaa def luy gërëm loo Sëñ nag li wérte mooy ku jëf ci jumaa ji moom sëñ tubaa da nga am ngërëmal sëñ tubaa ndax néegub yàlla la war na masaajida lillah te néegub yàlla ku ci jëf am ngërëmal yàlla am ngërëmal yonent bi am ngërëmal sëñ tubaa murid nag loolu woo moo war ne itam ndax idil muridu laa yuridu abadan gayra ridar rahmaani xaytu qasada te ngërëmal yàlla nag moo gën a rëy lépp ridwaanu minallaahi akbar kon ñu bàyyi xel loolu bu baax liggéey bi nag fi mu toll ca ci France gi nga xamante ne moom moo ñu tax a jotaayoo ni tey doon jébbale seenub liggéey sëriñ Afia mu agsi euh, di toll ci euh, six cinquante mille euh, loola sëriñ Asan leeral na na nga xamante ne noonu lañ ko dajalee foofu ca Murid ya waaye loolu tuuti na lool ci waa France tuuti na ba yegg ci lool ci boo xamee Murid yi nekk France te ñoom ñoom ñi nekk France ñoo war a gën a jëmmal liggéeyub sëriñ Tuubaa bi ndax france yi ñoo taxawoon di gàntal liggéeyub sëriñ Tuubaa bi di ko gaar ngir bañ mu ngir di ko gàllankoor ngir bañ mu sotti lay ndamal Sëñ dëgg-dëgg mooy ñiy gën a fës ci liggéey Sëñ Tuubaa boobu di ko sottal mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen biir te Sëñ dimbali leen ba ba nekkuñ ay yéefar e, nekkuñ ay ay leneen waaye ñu nekk ay murit loola ndimbal la loo xam ne xe moo dem jaayante joxe bakkanam jihaad ba taxawal diine ba loola mën a sotti loola war naa tox dox seen digganteeg lépp ba tax ñuy ñuy loolu war naa dox seen seen diggante ba tax lu ñu jëfal Sëñ Tuubaa rek ñu am ca loo xamante ne ñu ñu taxawee ci taxawaay boo xamante ne kenn du leen ca raw euh, loolu nag gis nañ ñëw ñi nga xam ne ñoom lañ seqal Europe muy waa Espagne ak ñi nga xam ne ñoom lañ aju ñooñu gis nañ ne ñu ngay dox doxin woo xamante ne aw xel la kon nag kon nag waa waa waa Amérique itam noonu am taxawal nañ ay fédération sax ñoom weesu nañ ay association waaye taxawal nañ ay fédération ñi taxawal ay fondation di ca liggéeyal Sëriñ Tuubaa liggéey bu rëy a rëy boo xam ne mi ngi jëm si ci jumaa ji di sottal liggéey bi nga xamante ne yittey alal la yenn yi ay matériel lay laaj ñu koy leeral ñenn ñi murid yi di ko indi yenn yi itam alal rek moo ko sottal loolu nag nañ ko war a xamee am na jotaay yu bari yoo xam ne leeral nañ ko ci Sëriñ Asan mii bi mu jugee Espagne ñëw France itam yitteem jëpp mooy liggéey Sëriñ Tuubaa ci jumaa ji loolu moom ni ko Sëriñ bu soob waxee ñëpp xam nañ ko mooy jëwrin la ju wóor ju wér joo xamante ne Pastef am euh, kenn nattableetu ko ngir taxawaay bi mu taxaw ci liggéey bi taxawal nañ fa nag ab association boo xamante ne jubluwaay bi lenn rek la mooy fexe ba li ñu liggéeyal Sëñ Tuubaa ci jumaa ji ñu gën koo nos gën koo nos ndax murit yi am nañ yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa am nañ pas-pas bi waaye bu mbiri leeree ci ñoom rek te lépp di am transparence dana tax ñu gën a ñu gën a ñu gën a joxe seen bopp ci liggéey Sëñ Tuubaa boobu bu leeree seen bopp itam ñu xam nañ koy jaaree ba mu sotti danañ ko jaar danañ ko jaar foofu te joxe ko moo tax association bu taxawal nañ ko mu ngi basé wu Toulouse ndax secretaire général bu foofu la nekk euh, man mii nag maay président ba man man lil laa féete Sëñ Mbacke Dieng moom mi nga xamante ne mooy secretaire général bi mi ngi féete woo Île-de-France di Paris am na meneen Sëñ Cheikh moo xamante moom moo ko doon Cheikh Niang moom mooy moom moo ko doon taxaw kayit yeeg ya ci aju yëpp moom Toulouse la féetee moom mooy trésorier bi ni ko sëñ Assane waxee ña nekk foofu kon ñoom lañ ba ja jox loola. loolu nag li muy li muy tekki mooy waxuñ ne waa Fra waa Île-de-France rek ñoo moom lii wala waa Lille ñoo ko war a saytu wala waa Toulouse ñoo ko war a saytu waaye tasaare googu ñu ko tasaare day wan ne ñëpp lépp ñëpp la lu ne ku ne war cee nekk kon duñ tànn ñu nekk fenn rek jox leen ko ndax. sëñ imam Bousso di kilifa gu mag ci daayira bi eh, di bokk ci membre yi nga xamante ne waxtu wu nekk ñi ngi jëmal seenu liggéey ak di ko jëmmal ci ci liggéey bi ma nga fa ak ñeneeni membre yoo xamante ne lépp liggéey bi mën nañ koo doxal ci xam-xam ak ci taxawaay ak ci pësteef waaye jë jël ñenn nit rek jox leen liggéey bi day mel ni ñenn rek ñoo ko moom moo tax ñu defee ko noonu ci xalaatu sëñ sëñ Assane ak mbokk yi nga xam ne ñoom la ko seqal ñoom sëñ Modou Kara ak sëñ Mbacke Dieng ngir dëkk bu nekk am ñu fa taxaw ñoo xamante ne dañuy fésal seen liggéey loolu nag mooy membre fonda ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne ci bureau bi waaye loolu tëjuwut waa waa waa Nantes ak euh, waa Clermont-Ferrand waa La Havre waa Rouen euh, ak mboolem dëkk yu mag yi nga xam ne ñoo fi nekk surtout waa Lyon ñoo ñëpp dañoo war a adhérer dugg ci biir euh, bureau exécutif bi nga xamante ne moom mooy mooy kii bi ndax soxlawaat nañ yeneen membre yoo xam ne dañuy ñëw bu ko defee dëkk bu nekk. ñu taxawal fa liggéey bi di ko jaarale ci ay lich suñ bu soobee mi ngi koy junj léegal imaam di wax ne kenn ku rek fa nga nekk laajut ñuy dajaloo mbooloo ngir mën a dajale dara waaye dañ taxawal association bokk na ci li gën a tax ñu gën ko taxawal mooy di gën a mën a def am accès am compte bancaire boo xam ne day am RIB bu ñu mën a yónnee ñëpp ku bëgg a tàbbi ci liggéey bi fa nga toog ngay toog tàbbi ci liggéey bi te doo du jar ngay déplacé wu ndax xam nañ waxtu ak dëkk ba ni mu xatee waaye doon nañ créer ay liche litchi yoo xamante ne eh, contre litchi lay nekk te loolu bu ñu ko defee ci tuuru nit mën naa mën naa mën naa gën a jafe ndax li ñuy de li ñuy récolter ci xaalis pour mu jaar ci compte personne day day xaw a compliqué parfois mais buñ ko jaaralee ci compte association bi mu am ay kayit noonu nga xam noonu lañ ko déclaré à la préfecture loolu dana dimbali compte yi nga xam ne moom la ñuy créer mu nekk compte yoo xamante ne yu fiable la waaye yu am rapidité bi ñu soxla la ngir mën a récolter xaalis bi ngir yittey jumaa ji day taxaw du mën a xaar du mën a xaar ñu koy jaarale ci ay compte nit ñu war ko justifier war war a jël yeneen di ko ciy def bu ko defee muy jël ab durée boo xamante ne yitte ji ñu soxla war koo faj ndax yittey jumaa ji yitte ju quotidien la yitte ju hebdomadaire la yitte ju mensuel la yu annuel la na yooyu yëpp dañ ko war a daa am yoo xamante ne mënta xaar faaw rek liggéey bi daa war a tàbbi ñu def ko faj yeneen soxla jàll ci leneen kon moo tax loolu ñu ñu bàyyi ko xel ñun kon ñu ngi bu ngeen gisee ay liste yu ñu créé envoyé ko ci ay groupe whatsapp ñu bind ci jumaa ji mu muxaddamatul xidma loolu nangeen xam ne lu wóor la lu wér la loo xamante ne luy egsi ci jumaa ji la loolu itam jëfuñ ko ngir lu dul jàppandalal nit ñi liggéey bi fa ñu toog ñu mën faa toog ko yor seen téléphone wala seen ordinateur ak seen carte bancaire mën a joxe seen adde jëm ci jumaa ji mu egsi loolu lu luy jàppandal liggéey bi lu ko yor la xam naa danañ ci gën a def ay ay ay ay communication yoo xamante ne dana gën a egsi ci yéen ñëpp incha allahu rabbi bu ko defee liggéeyu gàmm gi itam ñu bàyyi ko xel xam ne eh, sëñ Saliou moo santaane woon ñuy gàmm ñu daa ko defee fii fii kër sëñ Afia bu su al imam bi Cheikh Sidi Muxtaar egsi itam la wax ne nañ ko indi ca jumaa ja ngir saytu saytu wàllu jumaa ja saytu mooy mooy mooy liggéey bi gën a mag ci lii daayira bi di liggéey bu ko defee ñu nekk foofa mën ko faa nekkaale ndax faw ab équipe dafay nekk boo koy saytu mu boole ñu waaraw du raxiin ngir ñu ànd liggéey booba liggéey boobu itam laaj na képp koo xamante ne bëgg naa liggéeyal Sëñ Tuubaa itam mu ci mu bàyyi ko xel liggéeyub gàmm gi tamit ci liggéey yi nga xamante ne dañ ciy soxla ay addiya ngir mën koo saytu niñ ko bëgg saytoo ci la bokk kon loolu itam eh, dana am solo lool ñu bàyyi ko xel waxtu mu nekk di diglu Sëñ Asan mi nga xam ne mooy jawriñ ji ak ñi nga xamante ne ñoom la ko àndal ñoom Sëñ Seex Juuf Sëñ Ibrahima Jóob sëñ ma jàng ñang ñëpp di nekk ñoo xamante ne dañuy dañuy liggéey liggéey bu kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di ñaan yàlla suñu borom mu nangul ñu liggéey bi ñu liggéey suñ Tuubaa fii te koo ànd yàgg koo yàgg koo yàgg eh, liggéey bi yëpp ñu daje ca ngërëmal suñ Tuubaa eh, te daray ngistal ak daray àdduna bañ cee feeñ loolu yàlla mën na ko yàlla ñu ko defal ci barkeb sëñ tubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, jërëjëf sëñ Amdi Mbacke mi nga xam ne moom lañ doon dégg léegi mu yëkkati kàddu yi e, ci noonu ñu ko leerale mu nekk ci boppu association boobu nga xam ne mooy bu France boobu ñu taxawal ngir daayira Muxaddamaatul Xidma e, leeraloon naa ko sax bërki démb waxoon ne sëñ Amdi mi dafa bokk ci commission culturelle bi nga xam ne ñooy taxawu jumaa ji ci wàllu liggéeyu xam-xam bépp sëriñ bu Bousso Thierno mi nga xam ne moom laa feggool nii Eh, doon jëwriñ ji nga xam mooy jiite commission bi muy ko ñëpp xam nag ci liggéey bi ndax fii ba Amérique eh, Europe mën naa ne ñaare foo ko gis ñaaree di nga ma gis ñu ànd ci dir yaatal liggéeyu daayira Muxaddamaatul Xidma ba fondation boobu nga xam ne mi ngi am Amérique ci sëñ am di doon ko leeral léegi ak association nationale boobu am Espagne bi ci ndigal yi rotee sëriñ Afi Bousso imam mii ak daayira bi ñun lan yabaloon kon sëñ Ablaat ñoo ngi lay siyaare bu baax xam naa ñu jël kàddu yi rek jébbal ko al imaam sëñ Afiya moom mu yëkkati kàddu yu mujj waaw sant nañ ñëpp nag gërëm ñépp di ñaan képp ku ci jëfa ku ci yéene lépp ñu dajee ceeg rek tawféexi sëriñ bi bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya al wa ala alihi wa sahbi xadimi mati ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo teew ci sunu kanam tabaay conférence muy sëñ Bousso Bousso al imam ak sëriñ Moustapha Mbacké ànd ak sëriñ Cheikh Diouf ak sëriñ Magay Ñang ak sëriñ Ibra Diop ànd ak ki nga xam ne mooy jëwriñi diaspora bi yëpp muy sëñ Assane Diop ñi ngi kon jël nuyoo Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullah wara moom mi nga xam ne mooy njiitul yoonu murid gépp ak njiitul mbo ak nuyoo mboolem jëwriñi daatu muqaddamatul xidma teg seen loxo ngeen jot ni ko mboolee ta mbokki talib yi mbokki talib yi nekk foofu di wax ne ñi ngi bëggati bu baax ak di rafetlu taxawaay bi te duñu wax ne bu njëkk la duñu wax ne gureet la waaye dañu wax ne naka jekk seen taxawaay mi ngi rafet na mm, tey euh, daayira bi nag niñ ko waxee mm, mi ngi taral loxo ñëpp ndax li mu yanu dafa xaw a diis loo xam ne seen ko rek yaakaar naa tax nga xam ko wante bu ñu seetee jataay bi nga xam ne moom amoon ak waa diaspora bi ci fan yi ci gannaaw te ñu doon ci leeral liggéey daayira bi ak doxiinam wàll bi nga xam ne moom gàddu ci responsabilité yaakaar naa ku fekkoon waxtaanam maa nga dégg ko da xam daayira daayira bi li mu yanu di service koo xam ne sëñ Tuba rek lañ ko ñemee sombil waaye nag fa alhamdu wa shukru murid yëpp yëg nañ ni jumaa ji mooy xorob murid yi ba tax na ragaluñ cee sombi lenn ngir xam ne lu ci rek murid dañ ko bokk ak ñun na kon ñu ngi doole eh, talal loxo ñëpp dara muñ jiitalee ngërëm ci ñëpp ndax kenn mu see gàttal ñu kenn mu see sa ndamlu mm, fu fu waaye mën na nekk rek ak réew mu ne ma nekk yëg na ne liggéey Sëñ Tuubaa war na ko te liggéey Sëñ Tuubaa tam dara jiitu jumaa ji barta na ma ci def kam kattanam ba na kon daayira bii ñëw tey ay conférence andi leen téeméeri junni ak fanweer nga tabal ko ci liggéey bi kon ñu ngi leen di joxe sunu cant di ko teg ci loxoy jëwriñ yi fi teew ñu jot li ko jëwriñ yi nga xam ne moom fa bàyyi di ñaan képp koo xam ne tabal nga ci sa ñaq maa maa ngi am yéene tabal ko ci sëñ Tuubaa gàttandu la boppam nangul la ko te dafa la tawféex ba loo ci yéene def rek nga def ko ci te mu jàpp ni la lool kàddu daal du bari du wees rek mm, ak cant di wees ak seere ci ne liggéey bi moom mi ngi agsi ni ko bokk waxee léegi ci suñu asan képp koo xam ni taba ngay so ak foo mën a nekk na nga xam la la nga ca tabal mu néew muy lu bari agsi na ci daayira bi te tabal ko ci tabal nañ ko ci liggéey bi daayira bi nag moom da tàggoo ak i ajo fu mu toll rek mi it itti yu taxaw yaakaar naa jotaay bi ñu mujjoon def leeral nañ ci yi nga xam ne moo taxaw fi mu ne ba mbooloo yi fi nekkoon te nekkal fi réew yi ku ci nekk jël nga ci taxawaay boo xam ne jël nga ci say motuwaay tam ci na loolu incha allahu dana sotti balaa yàgg mu yi fi gaaraloon keroog bi dajee ak mboor waaw bi dajee ak mboor ñoo tam ñu koy fàttali mbokki taal bi yëpp wax ñu leen ci xaar ñu leen ñu di xaara ci ci des yëpp itam fii daal moom mm, jumtukaay ñu ngi fi lépp loo xam ne ënd nañ ko tam dañ ko saytu dañ ko def ci liggéey bi kon euh, ñu ngi xaar Euh, euh, jàppaleeg mboolem murid yi ak fi mën nekk euh, suñu asan kon loolu rek mooy kàddu du gudd waaye ñu ngi doolee sant kon kilifa yi fi teew di leen doolee balo ak itam di leen jaajëfal di tam ñi nga xam ñoo nekk seen gannaaw suñu asan nag ni ko mbokkee waxee léegi du jar baamuwaat ndax lu ñëpp xam la ku ne xam ne ne moom yeneen itte amu ko keneen xamul ko yeneen itte kenn ku xamal asan itte yoosu daari yi mooy subaam mooy ngoonam mooy bëccëgam mooy ngoonam mooy xaatam mooy waxtaanam moom dafa jël léppam jëbal ko sëñ bi séddoo ko séddoo ko kenn moo tax kon daari bi mi ngi koy doole dëgëral ci kanam mbooloo yëpp da xamal na daal moom mooy njiitul diaspora bi yëpp lépp lu ci waaye war a xam ci daari bi itam yàlla dogoon a xam na ko lu ci waaye bëgg a leer itam boo jokkoo ak moom daan la ko leeral boo ci bëggee tabal sawara tam dana la wax fa ngay jaar ba tabal ko ndax moom contact direct lay def amul lenn loo xam dana jaar ci loxoom wala wala ay wax rek te yéen di si ci man lu ko waay wax wala lu ko waay jëf dana ma woo diw sàngam def na nangam def nangam numéro ngi nii woo ko loolu nag ñu ku ñu wut li def doo ko def du cooy mën tabal rek fa saasa dana ma woo ñu ma diw sàngam ci réew sàngam dugg na ci nangam numéro numéro ngi woo ko nga jaajëfal ko kon moom li muy jëf lu mu lu lu lu lu lu luñ ko wóoloo rek lu ko raw mi ngi ci kon ñu ngi doolee sant bu baax doolee dëgg dëgg tam jëwriñ yi nga xam ne ñoo tax suñu kanam muy sëñ Cheikh Diouf ak sëñ Magay ak sëñ Diop sëñ am di xam ne kon jëwriñ yaa ngoog euh, daayira bi ñu ngi leen gën a fàttali ñoom itam seenu samp di leen gën a teg itam ci kanam mbooloo mi euh, di bëgg ngeen déglu seen xalaat ndax ñoom yaar dogal na ñoo itam ni ma wax ci Assane rek laay wax ci ñoom ay mag lañu waaye ba léegi tëkkoo seen seen laxasaay seen ittee mooy liggéey sëriñ bi rek guddeeg bëccëg ba tax na mm, ñoom itam ñu ngi pegg asan kon ñu ngi bokk di xaar ñëpp di wax ne yàlla suñu doon jàpp na mbir yëpp faj aajo yi nga xam ne mm, mu ngi seen bopp te mënuñu koo ñàkk seen borom mi nga xam ne mooy faj aajo faj ko ci bakkab sëriñ bi barke yëngut yi barke njaboot yi mm, ba lii nga xam ne yéen ngi koy def seen borom continuer ko be ël bu ëllëgee seen njaboot di ko taxawee ganjaar fi taxawee ndax dañ ndax euh, nit ki li li muy jëf njaboot njabootam di ko gis euh, tamit lu baax euh, moom yaakaar naa ne ma ngay wane ma ngay wane aw yoon ndax mag ñoo xam ne ni ma ko waxe murid da dul wàcc waaye murid bu na doon wàcc ñu bari wàcc nañ waaye ñoom ku ci gën a doon mag keroog nga gën a keroog nga gën a bëggee li suñu Abdou li suñ suñ Abdou daan keroog la gën a foqale du bàyyi dara gone lekk cere gone rek la murid la murid màggati murid yi man ba ku ku ku moom dañ la ko def ndax ñoom du ñu gën a gone muy dem de màgg nañ waaye dañuy ànd ak dañuy ñukk de waaw ada ko leen ci kanam gone yi kon yàlla yàggal leen ci kanam gone yi ñoom itam yokk yokk yokk taw feex yi yokk ndimbalu sëriñ bi ak ngattanaam Cheikh Mountakha suma jàggal ko fi ndax moom itam jor ji ma jëwriñ la ndax moom itam saa su ne mi taxaw ci kanam mbooloo mi eh, di soññee te nekk ci kanam nag moom daa ibn boo xoolee gis ko ci fooy Pastef tolloo boo toog boo fa jógee rek da ngay gis ne dese ga en tant moom mi nga xam ne moo nekk kanam bopp bi moo toll fii da ngay gis ma des des bari suñu mën a xam yàlla ko ne moom ku toog ak moom wala nga wax ak moom wala nga gis ay jëfam ne kii moom ba léegi jotagoo ko te moo njiitul yoon wi kon nag nañu xam ne nañ lax saa te lagg rek ni ko murid di yàgg a waxee nag yàlla su mun defal am koom yàlla su mun defal ak wér defal nu ak yor defal nu ab yar ndax koo xam da ngaa war daw liggéey foo toll war ngaa wér te murit liggéey moo war kon yàlla nu wér koo xam dafa fatal da ngaa war di ñuqali joxe da ngaa war a yor kon itam yàlla defal yàlla defal ak yor ab yar itam mooy li nga xam ne mooy mooy li fi andi ndax suñu daan wax ne kat ab yara mooy li fi nekk ku fi jëlee bàyyi fi dara ku fi bàyyi jëlee fi dara kon yar boobu itam yar ko suñu defal ti lépp lu ñuy def mu ànd ak ixlaas ànd ak sell ànd ak yar ak teggin waaleykum salaam wa rahmatullahi wa Euh, jërëjëf al imam kon xam naa kàddu yooyu mooy sëñ Afia indi woon rek ci bokki jullit yeeg bokki taalib yi yëpp nag rawatina waa France yi teew kon imam sëñ bu soobee kàddu yi sëñ Afia yooyu ñun ñëpp dégg nañ ko sëñ Cheikh Diouf euh, sëñ Magay sëñ Ibrahima ak jëwriñ sëñ di euh, itte yooyu nag sëñ Afia wax bu ñu xoolee barki démb sëñ Abdoulahat bu sa Cerno mi ngi ci yëkkati ay kàddu ndax ñoom duñ yëkkati seen kàddu mukk te duñ tudd duñ tudd waa France ci yeesal gi nga xam ne ñu ngi koy yeesal liggéey seexul xadim bi rawatina margu bi eh, kenn ku ne xam ne ne ñoom ñoo ko yeesaloon ñoo yeesal tamit auto vidange boobu nga xam ne mooy vidange bi nga xam mooy ni mooy mooy mooy vide fosse yi loolu waa France ñoo ko defoon ay machine nag yoo xam ne tamit machine yu seer sax yoo xam ne benn bu ne rek daanaka boo ko doon làmb mat 4 millions ñoom ñoo ñoo ko jëndoon jënd ci ñaar yoo xam ne euh, man mii lañ koy yónnee sax ñu indi ko fii kon nag ñoo ngi leen di jaajëfal te di leen séentu nag ci itte yi sëñ Afi wax nag euh, barki démb dégg ngeen sëñ Abdoulaye Mokhtar mu leeral yitte yi nga xam ne daayira bi moom day yitte yoo xam ne yu taxaw la muy oto setar citerne yooyu nga xam ne soxla nañ ko ndax euh, kenn ku ne dégg na màggalu ren gi manqué ndox gi am ci Baxiya euh, ñu soxla woon fa oto setar nag camion boo xam ne oto ndox lay doon ak ci jumaa ji ngir sëñ Abdoulaye Thierno leeraloon na ko ngir ñuy mën di réservoir ya ya nga xam ne moo fa am échelle euh, électrique boobu tamit bi nga xam ne day jàppale ñi nga xam ne ñooy monter pile yi ndax pile bu lakk ñaar ngay sof ay weñ yooyu amoon échelle boo xam ne tey jii pile bu lakk day daal di mën a jóg rek def liggéeyam loolu mooy gën a gaaw euh, ak yeneen yitte yi nga xam ne tam waxtu wu ci ne daayira bi euh, muy muy muy muy oto mbalit boo xam ne camion lay doon loolu nag jàpp naa ne waa France buñ ko yëgee moom. jàpp naa ne moom moom moom moom moom am gàttandu mën na cee gaaw am ndax kat bi ñu yëgee yii war nañ koo yeesal ñoom la ko sëñ Tuubaa taw féexale kon nag woowaat nañ leen ci woo ci ñëpp waaw kon xam naa loolu moom lañ doon indi sëñ Ablaat baax na waaw waaw bisimilah la taqata lana bihi اللهم صل وسلم ودينا وصوركم الله وحسن مستقيم كل يوم وخذنا وقينا وكنا أصبر ستوري أصلح حمولي يوم الأجابة نسير أسألك توفيقا وتيسيرا وسلامة وعافية ورزقا ولا تنفع كل أمر رحيم ولا سيدنا محافظنا ولا سيدنا سقطنا أكبر دعاء